ak euh, membre guvernement bi pour ñu jëm ci li ñuy wax régulation des réseaux sociaux euh, wante xam nga affaire numérique ak affaire réseaux sociaux dafa ne secteur boo xam ni ñëpp xam nañ ni muy doxee mooy secteur boo xam ni dafa yëngu dafa dynamique mooy dafa évolutif donc ñëpp xam nañ ni secteur la bu xam ni donc euh, acteurs yi doxuñu dañuy daw donc loolu aussi nekk na lu am solo loo xam dañ ci war a bàyyi xel yi nga xam ni ñëpp dañ ci nekk war nañu bàyyi xel bu baax ci secteur bi nu muy doxee mais également mbiru réseaux sociaux dafa ne loo xam ni ñëpp dañ koy dund tey defe naa ni ñëpp xam nañu tey euh, muy Facebook muy réseau yëpp yi nga xam ne ñoo am ni muy doxee donc euh, milieu la boo xam ni ñëpp ci dañ ciy daje. ñëpp dañ ciy daje dañ ciy daje di waxtaan ñi dañ ci daje di xamee ñi dañ ciy daje def commerce ñi ñi bëri xam nañ ni mu ni mu amee solo ci àdduna bi léegi. donc ba tax na donc fu ay nit di daje nag defe naa dafay jaadu yenn saa yi donc ñu xool nan lañ koy réguler. defe naa njiitu réew mi soo déggee ni mu waxee sax nga xam ne ci loolu la noonu la waxee c'est-à-dire wax. ci mbiru responsabilité nan la ñuy def ba secteur bi nga xam ne dafa dynamique ñëpp gis ni muy doxee mais ñëpp gis xaw ni mu mën a indee plus value ci àdduna bi ni muy doxee ci relation nit ñi nan la ñuy def ba doxale ko noo xam ni euh, njeexital yi ëpp mooy li nga xam ne mooy apport mooy plus value ci di jëm ci gën a jëmale nit ñi kanam wala li ci gën a baax mooy ëpp que li nga xam ne moo ci nekk comme euh, rëq-rëq ñu koy wax ay ay dérives. ci loolee euh, mu doon euh, mission bu war a diis ndax euh, xam nañ ne am na ci yeneen ay réew yoo xam ne jotoon nañu jéem expérience boobu waaye am fa mu mujj daanaka xëy na neexul wala échec la mujj doon yéen la naka ngeen fas yéene taxawee ci lu mel noonu ba lu mel noonu du leen dal. waa defe naa ni peut-être du mot bi nga xam ni moo approprié. li ci am solo mooy chantier la boo xam ni dafa nekk chantier bu am solo am njëriñ mais également. Euh, nit moom looy yëngu rek loo xam ne surtout day indi njeexital ci askan wi waroo sentir diisaay ci loolu je pense c'est question de responsabilité lépp loo xam ni war na ci ci jumtukaay ci waxtaan ci xalaat mais également ci doxalin defe naa ni gouvernement am na les moyen de mettre en place tous les moyens nécessaires pour loolu ñu doxal ko ba nga xam ni li nga xam ni moom la ci njiitu réew mi séntu li mu ci yaakaar ak li ci gouvernement bi bëgg mu am ko ci. su boobaa dispositif yi lan lay doon. waaw xam nga déjà au Sénégal am nañu un dispositif quand même sur le plan juridique et réglementaire assez bien fourni loolu ñëpp d'accord nañu donc maintenant mbiru numérique nag ak mbiru réseaux sociaux dafa ne loo xam ne ni muy évoluer atam da ngay xam ni ñeenti weer bu ne benn at la presque ci réseaux sociaux yi wala ci numérique mooy chaque quatre mois y a une nouvelle création presque <laughs> li ñu créer woon ci ñeenti weer day day day dépassé wu beneen bu bees ñëw kon ni muy évoluer wu bokk ak yeneen secteurs yi ni ñuy évoluer donc su loolu amee il faut tamit su fekkente ni structure publique yi nga xam ne ñoo ko war a saytu wala ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi ñu mettre en place ay dispositifs flexibles qui aussi peuvent s'adapter adapté wu ci contexte bi ni muy doxee de ce point de vue là donc dispositifs yi fi nekk am na ndax defe naa ni xam ngeen ni y avait la loi donc sur les données personnelles, il y avait la loi donc de 2016 sur le, code pénal, le code de, de procédure pénale, mhm. mais également la loi sur le code de la presse en 2017, mais également il y a 2018 la loi sur les communications électroniques. Tout cela donc mu ngi fi déjà mais malgré cela gis na ñu ba léegi am na ay manquements donc il faudrait ñu xam. comme lan manquement manquement mooy jusqu'à présent les gens ñu ngi continuer di dund di gis di seetlu. violation vie personnelle privée des gens ci internet bi ci réseaux sociaux yi te presque mën naa ni euh, dara du leen ci fekk malgré le dispositif ñenn ñi par ignorance la ñenn ñi ñàkk xam la ñenn ñi peut-être euh, ñàkk am information ci dispositif yooyu yëpp am ndax nit ñi dañu war a xam ni li ñuy def noonu am na loo xam ne ay loi ak ay textes yoo xam ni prévoir nañ ko ñoo xam moo prévoir ay sanctions ak lu mën a dal seen kaw mais nit ñu bëri xamuñu ko kon dafa am si un travail de sensibilisation d' information et de vulgarisation des outils yi nga xam ni état bi teg na ko en place pour que loolu yëpp su amee nit ñi mën ko doxal moo tax ma ni am na côté yoo xam ni yaayu a eu des manquements il faut comme même ñu daal di mën a adapté wu comme ni ma wax aussi nous sommes dans un secteur boo xam ni dafa dynamique secteur boo xam ni dafay doxul dafay daw De ce point de vue-là, il faut plus régulièrement, en tant qu'État, qu'on puisse adapter no dispositifs donc de, de, de, de, de régulation ci ni secteur bi du joxe. Donc moo tax de ce point de vue-là, je pense qu'une mise à jour des dispositifs me semble être quand lu am solo te defe naa ni li nga xam ni moom la njiit réew mi wax pour ñu xalaat ci régulation bi ci yooyu la jëm pour ñu waxtaanee ko mais également Euh, xool nan la ñuy adapté dispositif réglementaire yi ak législatif yi par rapport au contexte donc du numérique nga xam ne noonu lay ak réseaux sociaux yi. Euh, dispositif yooyu ngeen fas yéene jël mbaa du dem ba xëy na am ni euh, niñ ko nit ñi di yaakaare ne xëy na pour tëj gémmiñu ñenn ñi wala xëy na ñi nga xam ne ñu ngi làqatu ci ginnaaw clavier yi nekk ay opposants ñoom ngeen di fexeel ci lu mel noonu lu ngeen ciy tontu. waaw xam nga nag Sénégal mu dafa bëri spéculation. c'est-à-dire que Sénégal dafa bëri nettali géntu te yow xamoo lan lan la waa ji Sénégal soo seetloo ni ñuy doxee mooy dañu nekk pays boo xam ni démocratie fi mu toll tey ci Sénégal ak ci Afrique nekk na loo xam ni référence ak modèle defe naa ni weesu nañu fu ñuy tëjee gémmiñu opposant ak yooyu loolu ay wax la rek yoo xam ni peut-être waxu spéculation la mais defe naa ni tey ñun ñëpp d'accord nañu ñun ñëpp accepté nañu que li nga xam ni tey mooy am waa mun la ñuy gis ci réseaux sociaux yi nekkul lu jaadu loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci. am na sax seeni i yu mel ni yéen yenn saa yi dañuy ragal bind article wala dugg parce que nee nañ derrière li nga xam ne moo leen ci mën a fekk su demee ba kon liberté nit kooku tey nan lañ ko war a mën a apprécier ba nit di ragal bind article wala commentaire parce que li ko ciy fekk te pourtant dañ ni liberté la. est-ce que kon donc dañu war a bàyyi ñooñu ñu conquérir espace euh, réseaux sociaux yi. espace internet bi nga xam ne dafa war a nekk espace de liberté espace de dialogue espace d'échange de commerce est-ce que dañ ko war a bàyyil ñooñu war a mën nañ teg un dispositif boo xam ni ku ci nekk li nga xam ne moom nga gëm moom ngay xalaat ci idée yu baax mais également mooy opportunité bi nga xam ne mën nga ko ci tirer ci internet bi nga ñëw bokk kook àdduna bi ou bien dañ ko war a bàyyi donc c'est une question de responsabilité donc de pense globalement kuy sénégalais wala kuy internaute war nga mun a nangu ni tey seetlu nga wala gis nga ci réseaux sociaux yi loo xam ni rafetul jaaduwul ba tax na kon du nullement volonté nguur gi di euh, museler wala euh, casser de l'opposant wala di nekk di daal di liberté individuelle yi au contraire c'est liberté individuelle yi ak fondamentale yi la ñu bëgg a développer la ñu bëgg a protéger c'est de la responsabilité de l'État mettre un dispositif d'épanouissement donc des libertés individuelles pour que ku nekk mën a li nga xalaat li nga mën a euh, bëgg ci numérique bi nga def ko kon mu nekk combat bu noble waaye yaakaar nañ tam ni euh, xëy na Sénégal fi mu toll war na am li ñu naan souveraineté ci wàllum numérique moom boppam war a mën a am lenn lu mu taxawal loo xamante ne euh, comme yeneen réew moo xam États-Unis jàppale ay start-up wala sax mbir yoo xamante ne euh, def nañ ba nga xam ne seen réseau moom la ñu amal seen bopp lu mel noonu est-ce que yéen a ngi ci war a mën a taxaw. donc tey ci àdduna bi gafa bi ñoo ko yor mooy société mag yi nga xam ne ñoo yor àdduna bi. ñoom ñooy stocké suñu données téléphone yi ñooy stocké suñu données numériques yi suñu données yëpp ñu ñu jàpp nañ ni souveraineté numérique mooy su fekkee ni yow état bi jël nga say matukaay bopp pour am say infrastructure bopp pour mën a garder say données mais également assurer connectivité ñëpp am ko te lépp na ci biir réew mi Sénégal nag ci loolu def na ci ay jéego yu am solo def naa ni bërki dem seetlu ngeen tournée bi ma def ci Diamniadio tey njiitu réew mi mettre na en un dispositif boo xam ne tey niñ koy doxalee. souverain ca Sénégal mu ngi dox jëm ci souveraineté numérique mooy euh, connectivité bi suñu Sénégal réew mi am nañu loo xam ne tey ci mbiru connexion internet def naa ni nekk nañ ci 88 pour cent te loolu li ko indi mooy réseau yi nga xam ne opérateurs yi am nañ ko mais également nguur gi def ci investir lu am solo tey soo suñu nee suñu nee euh, sur euh, les quinze 15000 kilomètres linéaires de fibre optique Sénégal réew réewu Sénégal at yi am na ci à peu près 5000. kilomètres c'est-à-dire que presque le tiers kon état bi investir na lu am solo pour connectivité Sénégal surtout ci mbiru nguur gi mooy pouvoir public yi am seen seen souveraineté ça c'est important deuxièmement sur le plan du stockage je pense que la l'ADIE bërki dem seetlu ngeen dem naa ci benn data center bu mujj bi ñuy defar nga xam ne certifié tiers trois la sur un hectare investissement yu am solo lu nguur gi consentir pour ñu am les infrastructures numériques nécessaires pour une souveraineté numérique te loolu defe naa ni parce que président Lab dafa gëm numérique moo tax mu consentir investissement yi toll noonu. ci loolee am na lu ngeen def lu yees muy wàññi euh, liñ naan redevance yi loolee lu ngeen ci wund ak jamono ji nga xamante ne euh, xëy na bari na ci ay compte professionnel yoo xam ne yu yenn ci ministère yi ay point comme lañu yéen lu ngeen nar a def ci lu mel noonu. waaw ci mbiru souveraineté numérique bi nga wax sànq ci loolu lay ci loolu lay dugg. c'est que comme ni ngeen ko xamee. tey dafa am ay ci àdduna bi ay comptes yoo xam ni comme compte bancaire rek dafa am ay euh, sociétés yu bëri ñoo koy offrir Sénégal yàlla def na am na mun naa ni banque nationale <laughs> mooy nom de domaine am point sn point sn boobu ku bëgg say données nga xam ne li ngay def ci internet bi muy say email ci say document lépp ñu stocké Sénégal mu wóor la ni ëllëg benn fuite du am ba mu kii jëlal point sn d'autant plus que ci site yi gën a sécuriser la bokk ci àdduna bi xam nga seen àdduna bi yëpp ñëpp dañuy am seen bannière am seen drapeau le point SN ku ko jël yaa ngi participer ci luy euh, renforcer l'indépendance numérique mais aussi la souveraineté numérique du pays mais également dafa tombeek njiitu réew mi également joxoon ñu ay instructions daan ni li nga xam ne mooy accessibilité ak abordabilité des coûts de l'internet nañ ci gën a liggéey te loolu defe naa ni biñ ci defee ay jéego yàlla suturaal mi ñu am ci résultat bu mel nii donc loolu népp honneur bi nag ñu koy jël delloo président de la république mais également acteur écosystème bi yëpp xam ñu xam ni ñoom seen ndam la te ñun dañu def rek le portage institutionnel ba yàlla may ñu ci résultat boobu dañ ciy ñu ciy sant bu baax. Euh, ci wàllum institution yooyu est-ce que tey jii taxaw ngeen pour euh, ay bépp ministère am buñ ne euh, mailam mu doon. waa xam nga njiitu réew mi dafa def lu am solo. donc bi ma ko informé ci loolu dafa informé dafa wax waa gouvernement bi dafa leen ñaax mais également dafa ñu wax dafa ñu wan exemple mooy modèle wu président de la république mooy présidence de la république sax sitam point sn la mais également ay email la kon moom wane na la la voie daal di lancer appel nag euh, aux membres du gouvernement wax leen exemple bi internet. Euh, monsieur le ministre tey jii euh, yéen a ngi fasciné amal euh, ay maanaam nu ñu gën a jooyantee lépp lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi am yu yees yu ngeen nar a indi tey jii ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi wàllu li yëngu ci wàllum numérique moo xam blogueurs yi moo xam yenn ci ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci est-ce que taxaw ngeen ngir ànd ceeg ñoom jàppale leen wala ñoom ñu jàppale leen bu fekkee ne ñoom ñu leen jiitu ci yenn yi. waaw xam nga ñun dañu ne ci secteur boo xam ni comme ni ma ko wax c'est un secteur dynamique évolutif mais également c'est un secteur qui regroupe beaucoup d'acteurs les et on a toujours privilégié le dialogue et la concertation avec euh, euh, waa écosystème bi c'est-à-dire que ñu waxtaan euh, sottante xalaat ak ñi nga xam ni ñoo composé écosystème numérique dafa ne loo xam ne ñun dañ ko teg fii comme règle de gouvernance solution bu consensus. parce que ñoom ñoom sax dem nañu ba euh, xëy na joxe benn euh, yoon woo xam ne buñ ko jëlee xëy na dina gën a yomb ci régulation bi muy fexe lii di euh, wàllum numérique ñu di ko jàngale ci école yi. waaw xam nga loolu lépp ay idées yu baax la defe naa ni il faut se féliciter donc de comme ni wax nous sommes dans un secteur dynamique mais également nit ñi dañuy xalaat aussi di ko partager je pense c'est important. ak ñoom it ñuy xalaat di ñu defal ay proposition ñuy rafetlu lool bu baax a baax. defe début bu baax la li ci des mooy nan la ñuy def ba améliorer loolu comme ni nga wax aller vers peut-être l'institutionnalisation ñu dugal ci curricula enseignement yi ay module numérique ndax loolu mooy l'avenir beneen bi ci njiitu réew mi euh, orienté nañu pour ñu def développer le téléenseignement ñu dem ba enseignement beeg yëpp ni mu nekk numérique ni ci xol bi. te defe naa ni loolu mooy peut-être combler yenn difficultés yi nga xam ne am nañ ko ak Covid beeg wala yenn difficultés yi nga xam ni dañ koy am ci université yi ak plé pléthore euh, étudiants yi en fi yi dul doy tout cela lépp sol numérique li mu mën a indi comme njeexital comme solution kenn xamul nu mu toll. donc maintenant comme ni nga wax formation bi c'est capital mais aussi la sensibilisation ndax en réalité ñi nga xam ni ñooy attaquer nit ñi ci. Euh, si réseaux sociaux yi du xale yi ay magum jëmm lañ ay kilifa lañu ñoom ñooy làqatu seen ginnaaw clavier di moo tax ma ni sànq peut-être ignorance su texte yi la walla ignorance su li mën a dal seen kaw. kon ci loolee euh, monsieur le ministre maa ngi la naan jaajëf. man maa leen di sant leen gërëm di leen encourager donc di leen wax ne également comme na ma leen wax émission bu am solo ngeen di def boo xam ne dafa am euh, lien ak suñu ministère bi ñu dénk. jërëjëf kon monsieur le ministre Yankhoba Diattara ma fàttali ne yow la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum numérique ak télécommunication kon Anna Rocha